xam ni ku ci xeeb sa morom rek ki ci des daan la ku xeeb li ngay def rek ki ci des man na laa daan parce que euh, Sa Thiès kenn umpalewul ni mbër la te xale bu ndaw la te liggéey na te xale boo xam ne la wax dëgg mi ngi ci digg dooleem fi mu toll. waaye Reug Reug nan ko bàyyi xel ndax day xale boo xam ne dafa mën a bëri mën a bëri te néewul doole te gaaw man Sa su ma ko doon bëri loolu Reug Reug fi mu ne nii dama koy wax ni ko. moom fi mu ne wër ta bàyyi bëri ba sax di am temps waaw parce que Reug Reug hmm, boo xoolee am na coffre bu ne ci moom boo xam ni ah ci moom laa gën a yaakaar ni mu ëpp coffre Sa Thiès kon bëri bi ci gaaw-gaaw bi ci Sa la war a doon dafa war a gaawal combat boobu jàppanteel Reug Reug jéem a fexe am li muy am ci moom mbaaye bu deful loolu du dul di xaar Reug Reug bu bëri bi amee temps tuuti suñ leen attee buñ dee bëriwaat sama xel dina tey ci moom ci digganteem ak Sa Thiès xam nga lu waaw man de su ma ko yóbbuwoon waxuma mu ñëw rek xeex parce que rëg-rëg neexu tudduma parce que dafa am ay déplacement te dafa mën a bëri mais ci biir bëri bi laa la wax moom waru la may rëg-rëg dara du dëgg écartement warta am seen diggante daf koo war a sësu parce que moom jàpp ko rek moo war a doon li nga xam ni moo koy dimbali su jàppul rëg-rëg pour mu am dara ndax su ko rëg-rëg bëttee rek mën na ko dara te damay bañ mu taxaw di ko xaar rëg-rëg su ko Reug Reug bëttee rek daan kon moom dafa war a teel a jàpp jafandu ci Reug Reug pour mu bañ rek rëcc bu ñu jàppoon nag ba téyantey ngeem moom foofu Reug Reug dina am problème parce que sa sa kees am na poids boo xam ni macha allah ak façon doole boo xam ni bu ñu jàppantee bu bëri bi yàggee tuuti Reug Reug la yaram moom doon man ci moom dootu ko mën moo tax saa kees faaw mu bàyyi loolu xel man njaga ma wax loolu waaw waa dëgg la parce que nit ñi xam na ni wax dëgg yàlla sama xam xaw naa sori ci làmb. xam nga rëg rek fi ne nii lan moo ko war mooy li ma la wax ni la saa moom bu combat bi nee fërët wërta maye dara du dëgg wërta maye dara moom rek rek wërta maye dara yaa dëgg ndax bëre bi mu diire moom mooy gën ci moom bu xawee yàgg mooy gën ci moom saa Cees bëre bi yàgg gënul ci moom dégg nga ñaari wax yooyu ma la wax bëri bi bu yàggee baaxul ci saa kees bu gaawee waaw ma ngoog loolu laa wax ah mais saa kees dafa war a attaqué saa dafa war a attaqué Reug Reug dafa war a xeex moom bu dee li muy wax dëgg la ci moom dafa war a xeex de dafa war a xeex de parce que Reug Reug boo xeexuloon moom mënoo ko duma mënoo ko daan loolu kay ku nekk xam na ko soo ko mënta duma nii mënoo ko daan de maax la lu mel ni midi. Reug Reug kay da ngay am noo ko def touché ko mu jaxasoo ci biir xelam nga bëreet moom daan ko waaye bu ngeen bëree nii cim xel rek nii pour nga daan ko day doon problème loolu na ko bàyyi xel man jaga maa wax loolu de na ko bàyyi xel bu baax a baax Reug Reug xel du ko daan de ci technique du ko daan nii de faaw nga dóor ko mu ibeeku mbaa nga dóor ko mu jaxasoo ngay indi nga li ngay bëgg nga mën ko am ci moom waaye ñëw rek ngeen jàppoo nii bëri bu ngeen bëri ci xam-xam doo ko daan dafa am xam loolu kay moom maa la ko jërëjëf jërëjëf. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la. ndeysaan dëgg la. jërëjëf. waaw ñu ngi tàggatoo nag fi na ne nii na doon ne ci waajal moo xam ni xam nga ñun taalibe Cheikh Ahmadou Koura Mbacké nuur yi ni leen te fi mu ne dañoo jublu ci waxtu woo xam ne fi mu ne ñëpp a nga daaru waaw nu bëgg nag di woo képp koo xam ne suñu mbokku taalibe la ñu teel a wujji Cheikh Ahmadou Koura Mbacké nuur yi ndax lu ñuy def rek Cheikh Ahmadou Koura Mbacké nuur yi moo tax man boog man Makhtar Ndiaga lu may yëngu rek Cheikh Ahmadou Koura moo tax ma bëgg nag ñëpp bàyyi xel loolu nga xam ni ma ngi koy woote maam maamam jooju di ko woote ci Daaru Muxti ñu àndandoo ñun ñëpp jàpp ci lu waaye man rek ñu àndandoo ko dem fekki ko loolu moom bokk na ci li nga xam ni bëgg naa ko yéene naa ko ñëpp pour nu bàyyi ci xel bi ci des nag ñu ngi sant yàlla di leen sant bu baax a baax parce que yéen rakk yu baax ngeen toujours li bëgg a légal kees rek ngeen fexe ba laqati ko parce que lii ngeen di def dafa am maanaa parce que lii day dimbali mër yu ndaw yi parce que dina tax di nga leen yeddi ci xel ba ci nekk xëy na na jafee woon di ñëw fii di nga bàyyiwaat loolu di ñëw ndax gis naa fan yi am na ñoo xam ni xam naa li may dégg tax ñu ngi commencé ñëw ndànk naan ma père kat dañuy dégg ni da nga da naan boole woon boole boolewul ñu ci suñu bàppat yooyu moo moo tax ñu nit ñuy yoxoo su ndànk di la ñëw di la xamal ni ñun yaay suñu père yaay suñu papa foo ñu jëme nu jëm fa kon waxtaan wi am na solo maa ngi leen ciy sant di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen ñaanal gudd fan di gërëm ñi nga xam ne nag ñoom laa toogal muy sama soxna yii nga xam ni booy njaay a ngi ne toog di sama soxna di sama lépp ma koy ñaanal di ñaanal ki nga xam ni suñu soxna la ah, di ñaanal ndee la mii nga xam ni suñu soxna la at kee nga xam suñu doom la at di gërëm aji caat sama soxna si nga xam ni mu ngi may defal lépp waaw fu ma toll rek mi ngi may dimbali mi ngi may jàppale ba nga koy ñaanal bu baax a baax a baax di leen gërëm. donc ay xale ñoo koy ñu ñoo ko damay faral di àdduna ñëpp ay mbokk la bu ñu xeexee wala ñu xuloo bu ndey ay saada suba dañu mën a yar dañu mën a tey ñëpp ay xale lañu te Sa Thiès bu ñu ko fayee million ñun du ñu gis baabaa du ci lekk dërëm vraiment sama soxna li ma ko jox dépense sama poche jóge baax rek ngeen bu ko defee ay saada kon nañu war a yar ma tegg di ñaar suñu mag duñ ko wax danga wax ñun ku dëkk Thiès léegi ñun moom lañu faral vraiment macha allah yàlla na ko yàlla may ndam ñu ngi koy sant bu baax a baax père na balaa tëj dama bëgg nga indil ma tuuti ci Cheikh ñoom kan mooy Cheikh Niang. waaw Cheikh Niang tuuti lan kan lan laa lay wax ci Cheikh Niang lu ma la ci wax comme nan. Boy Niang la. ah loolu moom loolu moom <laughs> day sori ci man parce que Cheikh moom làmbam wax dëgg yàlla moom moo ko géréel boppam du dëgg nit nag booy wax ci moom dangay wax loo xam du dëgg bëgguma wax ci moom lenn loo xam ne bu ma ko waxee bu noppee ma koy riccu du dëgg xam naan daal doomi champion la ñun ñuy bàyyam ay champion lan def na lu nekk kon moom war naa mën a góorgóorlu ci làmb doon dara parce que kenn ëppalewu ko ci tey ñi fi mbubboo làmb yëpp moo leen ci puissance waaw mais damaa bëgg rek bu ko respecté rek war na cee mën a am lu ne ñu ngi koy ñaanal it yàlla na yàlla dimbali defaraatam xelam ba mu gën a góorgóorlu ci làmb parce que war na cee mën a am lu ne ni may moromam parce que du mag du mag fim mu ne nii coowlee fi nekkat yoy rek at teel genn gi mu teel a ñu naan doomi Boy Niang mais bu Cheikh ñing du mag warna naa ba legi parce que ñom modlo ñi ay moromam lan Cheikh ñing bëri naan modlo kon du deug Cheikh ñing bëri naan modlo Lo bu metti kero dafa modlo ba lamb ji guddi wa modlo mën ta fexé ba daan ko kon Cheikh ñing mën na daan ku na gëna entraînement te bëgg limi def parce que lamb nak da ngay bëgg li def respecté sa entraînement bu ko defee rek yalla mën nako dimbali ndax doomi champion la waa jërëjëf Mm-hmm.